man sëriñ Tuuba moo tax borom bu màgg boobu asaluwo maa ngi koy ñaan kaw na tiihil xasida nekk xasida gi ngay jàng di wakkaana ak xan xaari xatan mu jur ak xotti baax li haadatin ca aada yi nga xam ne moo fi da des ko soxlawoo di ko jariñoo lépp luy aada aji gëm yàlla soxla ko di ko jariñoo yal na ma yàlla defal ci xasida gi ak ci ja yonent bi ak xotti baax es di am les di jariñoo ci lu gaaw yéeme lool te am njariñ te àndut ak lor amin yaa ayu yow aji dund di sunu boroom yaa xayoomu yow aji taxawoo ji di sunu boroom yaay taxawu ñëpp yaay dundal ñëpp te kenn mënu laa taxawu salli yàlla nga dolli taraanga ak jàmm bi salaam te dolli sa musalam ga sa musal gu màgg ga na ko dolli ala lësi ci muhammad mii nga xam ne jaa moo indi bi ahsanil kalaam ngeen jaa naddi mag gi ngeen jaa rafeti kaddu muy bàyyi ko ci alxuraan moo ñu ko indil moom muhammad salli yàlla nga dolli teraanga ak jaam wasallim te dolli sa musalam ga wasallim te dolli sa musal ga yow sunu boroom ala ci kii di muhammad muhammad mii nga xam ne jaa moo nu indil bi ahsanil kalaam ci ngeen jaa teddi gën jaa rafeti wax di alquran wal ta xabal tayit yal na nga nangu yow sunu borom sal kalaam ci kaddu yi may wax ci téere bii di wakana akan amin mun na yal na nga xiiwal ala xaari i siil hurufi ci kiy jàng téere bii di wakana aqan yal na nga ko def ay xiiwal may ko ko mun na yal nga xiiwal ala xaari sil ci taalibe bi jàng téere bii di wakkaana àqan yal nanga ko may ay xiiwal bima ma ci xiiwal yoo xam ne yefooxu day kowe zanne njortam min maxroofi ci lépp luñ xam lépp lu xam te bëgg ko rek mu amal ko njariñ bu taalibe bay jàng téere bi yal nanga ko ko may ca may te may ko ca lu kowe njortam xal yi yal na nga béelal muy yal nga saxal ba faaw raba tonuga li naa simil wóoroofi ci ki nga xam ne mooy jaab yàlla bi woy téere bi di bakkaan ak ñu ko wax sëriñ Tuuba yal na nga béelal ak tonowoom amin boppam lay wax yaa yow sunu borom yaay ki nga xam ne kafahu yaa fegal sëriñ Tuuba moomu sal xuróori kay borom borogori seytaane wanu baax ak bawkat ya muy ña doon jéem a dox diggante ma ngërëmal yàlla ñooñu ay bawkat la leen moom sëriñ bi wali yu kilifa gi di sunu boroom yaa rahmaanu yow mi aji yërëme di sunu boroom yaa rahiimu yow mi nar a yërëm ci àjjana ña doon jaamoo ko sant ko gërëm yàlla ci yàlla boole yow moom yaa xëyu yaay aju dundule ji te yaay aju taxawoo ji yaay taxawe ñëpp yaa mukrima yaa yaay ngeen ji aji tedd yow sunu boroom naa jaaka yal na nga musal abduka sa jaam nga xam ne alxadimu mooy aji liggéeyal ja muhammad di man sëriñ tuuba mii di wax muhammad moome nga xam ne saa salaax mooy borom yéwén nga amin man yàlla nga dolli sa musal ga ca Muhammad moome nga xam ne moom laay joxoñ yàlla nga ko dolli yéwén moome nga xam ne allah musa sihil xulaa moo fi dindi ak nooneel moo fi dindi nooneel islaam ya moo fi dàq Muhammad moome yàlla nga ko dollee musal subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wasalaamun alal mursalina walhamdu lillahi rabbil alamina loolu mooy téere bu ñu wooyee wakkaana aqan foofu la yem téere bu baax di jàng la képp koy jàng yàlla dina la may ay xéewal na yombal sa wërsëg jafe-jafe yoo nekk yàlla mën na la caa génn ci lu gaaw ci barke borom Tuba barke Muhammad barkeb alquran ci namel ak sunu borom ko doon jiima ijaatu di wax rek mooy ndongo suñuy wooye Cheikh Mbacke Ndiaye di taalibeeb Serigne Mbacke Gueye ca ngàcc Serigne Mbacke Gueye ca ngàcc yal na fi yàgg ndax moo nu ne baa ba nu ne bàyyil lu xam ci moom lañ ko xamee yal na fi yàgg te wér na nga koy siyaara bu baax di siyaara euh, rakk ja Serigne Amsatou Gueye yal na fi yàgg di siyaare Serigne Cheikh Mbacke Gueye rakk ja yal na fi di siyaara mboolem seen ak njaboot sëti sëriñ Mabé yëpp ñoo ngi leen di ñaanal teraanga ak jàmm yal nañ fi yàgg te wér te yàlla may leen fajug aajo ñoo ngi ñaanal képp koo xam ne ma nga aju ca kër sëriñ Mabé Guèye suñu mbokki taalibe yëpp yal nañ yàlla boole defal teraanga ak jàmm te boole nu ca képp ku dégg téere bi te bëggunoo gàgganti nag suñu numéro mooy 76 684 12 04 76 684. 12 04 Cheikh Mbacke Ndiaye wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu